laaj na Tapha Tine arbitre bi sifflé na minutes Boy Niang moom ngeen jàkkaarloo Tapha Tine moo leen wan ginnaaw Ousseyn bi sifflé na teewal wéyal ñoom ñaar ndeysaan Boy Niang teg na pied droite Tapha Tine teg pied gauche cokkaas na léegi waaye Tapha Tine a ngi tekk di ko déglu Tapha Tine na ba tolloog Boy Niang Tapha Tine da koo bëgg a jàpp Tapha Tine lañ ko ko bëgg a jàpp Tapha Tine lu muy def nii Tapha Tine lu muy def nii. daa bëgg a jeexal combat bi. dugal na loxo bi ci biir garde bi xoolal ma Tapha Tine lu muy def. ndeysaan ñoom ñaar du yomb Ousseyn. nga def muy def bu tudd ngeen lay wër si ngale. ndeysaan daa bëgg daa bëgg booy ñaar seen loxo bi. ndeysaan booy ñaar cokkaas ko déplacé wu combat bi nag yaakaaruma ne Ousseyn combat bu yomb la. déedéet déedéet yaakaar naa ni ñoom ñaar ku ci nekk dina joxe. doo mën a première song bi dina jeexal làmb ji. déedéet en tout cas daal li mën a xew mooy Tapha Tine pare na Boy Niang pare na Boy Niang fi mu toll nii lii moo arrangé Tapha Tine mooy xeex mais Boy Niang jàkkaarloo moom corps à corps ku mu dal yombul ci làmb. Tapha Tine daa ni jàppante bi la gën a bëgg. Ndeysaan arrière na. woowaat na ko. nee na ko kaay. na ko kaay waatal loolu làmb la Ousseyn mbër yàgg na ko wax mbër. Tapha Tine Boy Niang ñu ngi noonu di ñoom ñaar Boy Niang daa mel bëgg a dem daa bëgg a dem Tapha Tine su doon maay moom damay sàmm tànk bi waaye Boy Niang bu demee lan la fay fekk aa Niang ba la jëm bu demee lan la fay fekk ah en tout cas daal ñoom ñaar ñaar xale la yoo xamante ne Ousseyn ku bi du ko teel Ousseyn lu Tapha di def nii loxo boobu mën naa déranger Boy Niang stratégie la def nii ñam na ko ci Balla Gaye dafay moo tax mu def ko tey ñam na ko xam na ko booy bi daa tëju. Ousseyn loxo boobu daa am lu muy sonal ci mbër. Uh-huh. loxo boobu le fait que mbër bi mu ngi koy gis du mën a xam lan nga nar. booy ñëw du la séen booy ci kawam du la séen boo koy song du la séen. en tout daal loo ci mën a dégg mooy Tapha Tine ni mu entamé combat bi baax na. booy ñaar eh, door na ko booy ñaar door na. ndaysaan door na Tapha Tine moytu. kuu bi dalagul. Tapha Tine Cimeka yaa ngi ne selaw ñoom ñaar supporter yaa ngi ne selaw ñoom ñaar Tapha Tine Boy Niang kenn déggatul kenn Ousseyn supporter yéen ñu doon wax Boy Niang. Boy Niang doon na ko góos bu dal boobu dal na. Boy Niang doon na Tapha Tine a na. Ndeysaan Boy Niang door na. mooy jërëjëf rajul eh, jàpp daw na génn. génn nañ sax Boy Niang daw. mooy tunoo sax baa ngay toj. Niang. Boy Niang mu ngi bëree stratégie bu garaaw ci combat bi. waaye lii muy bëree combat bi. loolu mooy avantage am ci làmb bi. Boy jël na benn avertissement. Tapha a ngi doxaat ci kawam. Ndeysaan Boy Niang Tapha Tine. Tapha Tine Boy Niang. Ndeysaan stade bi ba. luñ doon xaar ay at. ñëpp a ngi yëngu ndeysaan di ko xaar ay weer. ñëpp a ngi yëngu ndeysaan di ko xaar ay ñëpp a yëngu ndeysaan. Eh, loo bëgg mu yegg si bul ko jàppal bés. déedéet Ousseyn déedéet. Tapha Tine Boy Niang. wallaay. Tapha Tine teg na pied gauche Boy Niang teg pied droite. Pikine boo fa demee tey ma nga ne selaw Ousseyn. bilaay. Bawol tey boo fa demee ma na ne selaw fi mu toll. deret daa foor ndax ku ci nekk sa doomu réew mooy bëre ku ci nekk sa doomu gox mooy. Boy ñaa door na. Boy Niang day mbépp wàcc. ndeysaan sikito waaye Tapha ba léegi nangoogu la sànni. Boy Niang dooraat na Boy Niang cokkaasaat da ngay xeex moom Boy da koo bëgg a arrêté dafa bëgg Tapha taxaw waaye Tapha dafa bañ. ndeysaan Boy mu ngi door ay coups yu baax. Boy Niang Tapha Tine Tapha Tine dafa teey ci combat waaye su doon maay moom dinaa xeex ndax Boy Niang dong mooy door ngir nga Tapha cokkaas na Boy Niang moytu na coup ñoom ñaar en tout cas dinañ xeex ci bagaar bi dina bari waaye gis nga Boy Niang dóoraat na ma ngay xeex. Boy Niang est-ce xam nga ne ni Boy Niang di xeexee baaxul ma ngay dóor ma ngay déplacé. Boy Niang bul ko waxati Ousseyn bul ko waxati. day bëgg a mooy làmb ji déedéet Ousseyn. loolu ànduma ceeg moom. boo xoolee Boy Niang day bëgg a sànni tafaatin bu tafaatin taxaw. waaw mais ni Boy Niang di xeexee booy xool bu dóor sa doom at. jam rek déplacé mooy làmb ah, tafaatin fi mu tol ni moom moo war a xeex gis nga dóor na. noonu yónni yàgg. booy ñaa dóor déplacé wu dóor déplacé wu en tout cas lu mën a xew mooy Tapha Tine lecture bi bëri gis nga booy ñaa lii rek moo ko mën a arrangé ci combat bi di jam daw arrière jam daw gauche droite jam bañ a may Tapha mu bëgg bu la Tapha Tine woowee ci xeex nga bañ. en tout cas lu mën a xew mooy Boy Niang ma ngay xeex ak moom Ousseyn. Boy Niang bi waxoon naa la ko ci début ci début reportage bi nee la combat bi séntu ma mu doon combat bu gaaw. mun ta ndax dina neex. tabaatin Boy Niang daw na jël moom moytu. Boy Niang ko ca waaye xel maa nga ca suuf. tabaatin su doon maay moom damay moytu. Boy Niang ci tànkami la jëm. waaye bu demee lan la fay fekk. moo ma jaaxal man nii. ndeysaan ñoom ñaar ba tey ñu ngi Tapha Tine dàq na ko ba ci sat saa bi am taxaw Boy Niang day génn ko la muy def génn na ko Boy Niang day am deuxième avertissement Boy Niang day am deuxième avertissement Tapha Tine dafa tëj bëre ba mbaa du lu may xalaat daan nar a xew ci lamb bi bëre bu naa soof la nar a nekk ah en tout cas ñu changé wul ñii ñuy doxalee Boy Niang am na ñaari avertissement arbitre bi sifflé waat na Tapha Tine wàcc na ba toll ak Boy Niang Tapha Tine mais Ouzin li ma mën a xamal mooy yi Boy Niang di jël du dara ci làmb avertissement yi muy jël yëpp wan ne Tapha Tine laa ragal la te ragaluma la Boy Niang àpp ci ba tey jël quatrième avertissement balaa jël cinquième mu bëre gis nga ma ngay dóor day miime droite dóor gauche mu ngi dugg ci garde normal Boy Niang ngay dóor di reculer ma ngay dóor day jam rek dóor Tapha Tine day def cross direct. Boy Niang wuy si na ko. Boy Niang Tapha Tine. ndeysaan ñoom ñaar a ngi noonu dinañ xeex. Boy Niang yaa njottu naa ne daa bëgg a dem. waaye ñoom ñaar ku ci nekk na sàmm. Boy Niang dafa bëgg a dem. ndeysaan Tapha Tine jokkaas na. Boy Niang Tapha Tine. Boy Niang mu ngi jegewaat saako yi. Boy Niang dafa bëgg a daw jël tànk Tapha Tine. Tapha Tine jàpp na ko. jàppante Tapha Tine Boy Niang. Tapha Tine jàpp na. Tapha Tine am na benn loxo ci ngemb. Boy Niang jàpp na. Boy Niang Tapha Tine Ouzin. Tapha Tine Boy Niang Tapha Tine jàpp na mais Boy Niang jàppul mooy ci ouverture bi day dóor day dóor. Tapha Boy Niang génnaat na Tapha Tine Boy Niang. Boy li Tapha Tine bëgg la ko Boy Niang di xañ. Boy Niang actuellement Tapha Tine daa bëgg a jàppante moom kor ko dóor ouverture Boy Niang am na lecture jàng na loolu mook estafam xam na ni ku Tapha Tine benn boo ci na la jeexal laa Boy Niang nee ni muy xeexee baaxul. déedéet Ousseyn ni muy xeexee baaxul. waaye ñu ngi yow Ousseyn. ah ayca nañu yónni yàgg. ay coups dal. nañu yónni yàgg. vraiment su dina dal waaye fi mu toll nii coup bu dugg war naa taxawaat. Boy Niang Tapha Tine troisième avertissement moom Boy Niang na muy bëree baaxul Boy Niang tey li mu andi baaxul Tapha dafa naan si système da koy dàq ba ci saako yi mu taxaw. trois avertissement moom Boy Niang. trois avertissement. xoolal Boy Niang dafa ci doxaat na ci kawam. da koy dàqaat. loolu da koy dàqaat puus ko. loolu moo arrangé Tapha Tine Ousseyn. waaye en tout cas lu mën a xew mooy. li ma la waxoon samay biir wax. Boy Niang bañul ba jël quatrième avertissement. taxaw bëre. faaxal na ko. Boy Niang faaxal na ko. lu ma la waxoon Ousseyn loolu yëpp pour wut buntu la. Eh. dem ba ci saako yi génn saako yëpp pour buntu la. en tout cas lu mën a xew mooy nañ ma sàmmal seen i tànk de dóor mu daanu bi ñuy dàq ci combat bi mën naa am ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk ñu ngi noonu Tapha Tine saa yu xàccee Boy Niang dagg toob ah. loolu arrangé wul Tapha Tine waaye Boy ñaan saa yu buggee dóor day taxaw. dóor Tapha ndax Tapha Tine dura ki la. gis nga loolu mooy visé. gis nga li ma lay wax bu visé ba bëgg a jàmm booy ñaan déplacé wu. booy ñaan yu baax lay dóor Tapha Tine. na Tine nag bu doon maay moom dinaa jéem a fexe ba jàpp booy. mais coup yi am impact. ndax ñoom ñaar distance bi day am seen diggante. Tapha Tine dóor na Tapha Tine. dóor na booy ñaar da koy dàqaat mu génn. booy na saako yi ma ngay fayu. Tapha ñaa jàpp na. Tapha Tine waaye amagul ngemb ba léegi. Tapha Tine sol na Boy Niang 2 Tapha Tine na caxabal na bu bañ door na ko tànk ah, Boy Niang mu def Boy Niang ngay bëre Tapha Tine dafa diis ngay door Tapha door ci suuf i beykit boobu mën naa jeexal làmb ji may tul ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk ma ngay bëre bëre tànk Boy Niang na ko na ko xar na ko diis Boy Niang daf koo bëgg a bëreloo waaye Tapha Tine dafa diis si kaw Boy Niang fàq ataan na ko Boy Niang fàq na Tapha Tine Tapha Tine ngay dóor Tapha Tine ngay dóor Tapha Tine Boy Niang ma ngay dóor uppercut ci suuf Tapha Tine na la mu def wóor bëre waaw ma ngay bëre su maay Tapha Tine damay mëkk mu nangoo xaar bëre Boy Niang booy naa def erreur mu daan. bu defee loolu da koy may confiance vraiment boo dinaa def moom ni xale bi di defee waaye en tout cas lu mën a xaw mooy ñoom ñaar séntu nañ ñi fas yéene nañoo bëre ndax combat ba ma ngay bëgg a diire ndeysaan combat ba ngay bëgg a diire. Boy Niang Tapha ñu fàttali leen Boy Niang am na trois avertissement Tapha Tine amagul dara. Boy ñaa daa jàpp rek ndengeñ di déglu. ndeysaan ñu ngi noonu combat bi du yomb Tapha Tine Boy Niang ndeysaan combat bi mënul yomb ñoom ñaar ku ci nekk daa ànd ku ci nekk daa ànd ak seeni mbokk waajal combat bi muy Tapha muy Boy Niang ndeysaan ñu ngi noonu ba tey du ko ndengeñ ba di ko déglu Tapha Tine ngi dóor ay ndax day bañ kuwee ñëw da koo jàpp ndengeñ jël bopp ba teg ci épaule Tapha Tine Tapha Tine door na léegi Tapha Tine a ngi dooru saw ci suuf waaye Boy Niang jàpp na tàkki na déglu dafa bëgg a caxabal wala da koo bëgg a teq wala da koo bëgg a plaqué moom Boy Niang Tapha Tine jàpp na wéeru taxaw di ko déglu làmb ja ñëpp a ngi ne tekk bàyyi ji li ñëpp boo xoolee Boy ñaa li mu bëgg mooy Tapha di dóor ci suuf mu jéem a forcer ba bëreeg moom daan ko moom Tapha Tine ko arrangé ci combat waaye en tout cas li mën a xew mooy ñoom ñaar Tapha Tine ci loxo bi téye na ci loxo càmmoñ bu Boy Niang bi day bàyyi rek dóor day téewaat day waat rek dóor waaw waaw Boy Niang fàqat na ko jege nañ saako yi moytul. Boy Niang li muy def ni risque la. Boy ñaa parce que kii di Tapha Tine dafa xaw a diis yi muy jël. bés bu tombee ci piège Tapha Tine dina am lu ko bett lool moom Boy Niang. ndeysaan Ousseyn lamb loo loo gis risque ndax Tapha fi mu toll moom Boy Niang bu taxawee téye boppam waxuma la Boy Niang mais ku dul dina naqaree daan Tapha Tine lii rek nga mën a def bëreeg moom mu def erreur nga daan ko dem ñibbi waaye boo defut loolu Tapha neexut a yëngal. Boy Niang ngay tekki téye la sànni na la pataaka ba sànni tekki na sangoor ba. booy ñëw génn na dellusiwaat daa bañ a génn saako yi. Mm-hmm. booy ñëw fi mu toll su génnee am quatrième avertissement tey kon benn ci des. door na bugul génn. Euh, booy ñaa sonn na booy ñaa am na quatre avertissement. booy ñang dafa sonn. lamb ji da ñu ngi commencé baaxul. nii lay jeexee. ndeysaan. yaakaaruma gis nga am na quatre avertissement Ousseyn. jël na quatre avertissement moom Boy Niang Tapha Tine fi mu toll nii ñëwaat na actuellement ni Ousseyn score du Tapha bu doon maay moom dama koy forcer buux Boy Niang mu génn saako yi jël cinquième avertissement ñàkk làmbam mais nag baa ji coach yi fi mu toll nii ñoo war a jouer combat bi boo xoolee kii di coach Boy Niang Boy Niang am na trois avertissement ci génn saako yi am na trois avertissement ci génn saako moom mi coach bi waroon na wax ak moom avant mu jël quatrième avertissement mais ba léegi dafay toog di seetaan mais ki nga xamante ni mooy coach Tapha Tine amul dara lu mu ndax li fi fi ko Tapha Tine teg baax na waaye Boy Niang ni muy bëree su doon maay moom damay changé dellusiwaat ci diggi géew bi waaye nag ku ci nekk ak lañ lay tegtalee Boy Niang fi mu toll nii def na la ma woon a def Tapha Tine dirigé na fu lépp su ma nee woon football ne Tapha Tine moo àppoo vent bàyyi ji lii. est-ce que Ouzin gis naa ni yi am ci làmb ji yëpp actuellement Boy Niang moo ko def moo cokkaas xeex moo daw song moo tenté ay mais Tapha Tine daa téye di ko déglu bëgg xale bi ñëw wala mu wuyu si ko ci xeex wala xale bi def erreur mu daan. Eh, Tapha Tine dugal na ñaari dal léegi. Boy Niang dafa mel ni dañoo commencé gis coono day dugg moo ngi tekki gàllaaji di sànni moo ngi tekki gàllaaji di sànni nangootu def benn effort est-ce que coono commencé dugg ci côté Boy moo demee noonu contact une minute contact rek bu bëri la mais Boy Niang fi mu nii li mu nar yëpp mooy xeexal Tapha Tine taxaw bëreeg moom Boy Niang tey perte partition arbitrale moo ko gënal fii. daanu tey ci stade bi nga xam ne fii la dëkk muy biir Pikine mais est-ce que du bokk ci li koy yàqal ndax xool nañu bi mu dugg see cour des grands digganteem moog Lac de Guiers 2 nii la demee woon mu ñëwaat moog Tapha Tine mun naa demal Tapha Tine door na ko tànk léegi pàdd na ko waaye Boy Niang bougéwul est-ce que su demee waatee noonu amateur du am lu ñu koy reposé Boy Niang Tapha door na ko Tapha Tine Boy Niang Boy Niang coup yi jël baaxul door na ko doraat na ko eh door na ko pàdd ko doomu daal na lamb ja jeex na Tapha Tine daan na Boy Niang na Tapha Tine jël na ndam li Tapha Tine jël na ndam li ci kaw Boy Niang Tapha Tine jël na ndam li Tapha Tine jël na ndam Tapha Tine am na ndam ci kaw Boy Niang